xewoon dana yomb li ci des mooy nu waajal magal bi magal bi tey gisu rek laay wax ni am na benn waajkat boo xam ni daa mel ni yomb te waajal ni moom damaa masa nangoo ci Serigne Saliou mu ne bis bi ñuy màggal si bis ba ñuy yeewi nit ñi ñuy delluwaat ci seeni kër ci laay tàmbalee fas yéene waajal bisu buwéer bii ñëw kooku rek amoon na waaj ba tax na fi mu ne lu waaye waxati boo tuddul màggal bi maa la ngay wax moom dana mel ni am na ñu ko dul dégg Serigne Saliou mi mën a waat ñee na bis bi ñuy yeewu ñu dellu seeni kër waaye jóge woon ñibbi bis boobu ci laay tàmbalee waajal magal bi magal bi ñëw déwén kon nu bàyyi ko xel taw xam ni noonu rek la demee nangoo naa ci moom it mu lu ne teewaat a demee ci ko ba mu des magalu Touba mu ni magalu Touba fépp mu ci lii may wax rek kon magal gi dañuy magal gi tëdd waaye doxagul ko akam mooy fépp magal gi jàllul xéewal yi ak ak li ñu mën a jariñoo ak teraanga yi desul ci dëkk bi ak mbeddi Tuubaa yi ba mu mel ni baykat bu bay gerte te gerte ga nangu nan naa fiyey mel ca biir tool ba ni nawet ba xoo toll di séen su magal gi jàllee te Tuubaa mel noonu ci aw ñam sëñ Saliou ne la ñu àggaguñ ci àqu magal loolu nangu naa ko ci sëriñ bi nangu naa ci sama benn magu daara bu ma tudd tur bi na maag moom di waxtaane mbiru magal bi mu daal ci dugal ñaa nangam yoo xam naa buñ ko topp toog dana doy màggal mu ne ko mu ne tekk ko yàlla mu ne ko boobu bi mu mu ñaar ceeb bi benn ko bu ko jëndee ci fan tey ni ko soom na yàlla moom mel ni daaw moom mi nga xam ni wàcce na ay xéewal mun taw munuñoo def ci xéewal yi mu yàlla jox mu ëpp ci màggalu Tuuba donte bu ñu ñu dajale li ci adduna bi wàcce koy jotee màggal bi jotagul àq bi loo xam ne nag mënoo mënoo ko teral boo amee lu ci lu ci def ñu ko ci naatal da nga wax ne mat na doy na wala doyul na mujj tey boo ko dégati kon nag nu waajal màggal bi te bàyyi ko waxoon naa ko ca ca ca ca ca korite ba te tëbës bi sëñ Tuubaa nee na murid bu fëkk gënnam ni sama yaakaar wér na nee na bàyyi xam ne bis booba ma ko mel fukk fan ak juróom ñett ci weeru safar sëriñ bi nee na li tax bu ëllëgee ma mën a taxaw ci kanamu taalibe yi kenn ku nekk ma santante yow doo nga sa këru aljana nee na ci bis boobu laa baax muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëriñ Tuubaa nee na bisu màggal ci laa taxawee ci kanamu góor yàlla yëpp te yàlla ak yonentam dootul nangu ku ma féete kanam te ci bisu màggal boobu laa ko am sëriñ Tuubaa na màggal ci laa jaxal sama borom bu ma ko nee waaw mu ne waaw su ko nee déet mu ne déet màggal gi sëñ Tuubaa nee na amee daraja ju àgg sama borom nee na fii rek ak nay dox dootuma jëriñ kenn man yàlla te gisuma ci yow ba xam ndax sa gudd la wala du sa gudd sëñ Tuubaa